أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما ginnaaw bu ñu sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ñu xéwal ginnaaw nuyoo bi nuyoo bi lislaam ñu ngi nuyu mboolem senegal gi yëpp di nuyu mboolem àddina bi yëpp ci mboolem fi ñu ñuy seetaane ak ñu ñuy seetaane bu loolu jàllee ñun ñu ngi fii ci Bargny li may wooye Serigne Abdoulaye Diité nekk fii ci Bargny di nuyu mboolem waa dëkk bi yëpp ci kilifa yi aada yi kilifa yi diine yi kilifa yi ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu ci góor ak jigéen mag ak ndaw di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di bëgg a waxtaan ak yéen ci mbir yi xam-xam ci lintu xamakus néew muy xam-xam comme bi ngeen di laaj lu mel ni Musalazul Xasali yi muy xaati mu musallasul xasaali yu ñu cee waxtaan ak yéen ci kem li nga xam ni moom la ñu ci xam ndax ni ngeen ko waxee coow li bari na wax ji bari na ku ne ni nii la ku ne ni nii la waaye kenn ku nekk ak na nga jànge comme nag boroom xam-xam yi ñu ngi seetaan ñu ngi ñaan yàlla lépp lu ci waaye gis ci njuumte rek nanga nu woo wax nu ko waaye daal dinañ ko waxal dinañ ko wax dinañ ko wane te dinañ ci indi ay tegtal yoo xam ne nii pour dindi ko moom du yomb ndax wax dëgg gëstu nañ ci ba am na luñ ci jot a xam ñu bëgg ko labiré mboolem jullit yi musalsal nag buñ ko waxee mooy ñett ñetti bunt la ci misaal musallas mooy ñett waaye musallas yi dem na ba juróom-ñeent dem na bu fukk ak nangam ak juróom-benn ak yi ko topp waaye biñ ci bëgg a waxtaane tey nga xam ni musallas xaatim la boo xam ne bu jëkkoon mag ñi dañ ko daan ragale liggéey sax wala boog soxla dëgg dëgg dëgg dëgg bu jëm ci àdduna ak alaaxira bu taxaw dëgg dëgg moo tax ñu daan ko liggéey xam ne ci misaal niñ ko doon tudde rek mooy poñe yàlla donte la dina am ñu mu diis ci wowu déggin waaye ñu jéggal ma ci loolu damay misaal rek du caage nag yàlla dañ koy wutal ndend wala yàlla day ku ñuy poñe mag ñi ñoo ko daan xaw a tudde noonu ngir ñàngaayu xaatim bi ngir garaaweetu xaatim bi ba tax na li ëpp solo ci àdduna gën a mat a xam gën a mat a def gën a mat a lijjanti lu mën a doon lu ne rek xaatim boobu da koy liggéey soxla bu la jaaxal ci àdduna bu mën a doon moo xam saafara feebar la moo xam di ji wërsëg la moo xam dàq la moo xam ñuddi ci diggante ñuddi ak jiiñ nag ci la lépp tënku te lépp xaatim bi daf koy def ti ku ko xam waaye tam am na ay conséquence yu nekk ci biir ndax boo demee ci Ihya Ulumuddin Imaam Xasali wax na ko foofu nee na géej gi ku ci tàbbe xamal yaa ngi ci géeju xadar maanaam géej gu danger parce que yi mu jànkonteel moo doy waar par rapport ak ni ko jamono di tëddale nga xam ne ku jóg rek da ngay daal di jël di ko liggéey parce que lii dafa am ay sart ni jaamu yàlla amee ay surut lii noonu la amee ay sart yoo xamante ni ki bii daf koy digle ak loo xam ne daf koy tere ci ak jaamu yàlla li ëpp solo ci jaamu yàlla gi nit ñi di yegg ci yàlla dëgg dëgg yegg bokk na ci lii mooy ilimaani loola ndax mën nga cee dem ba lépp loo bëgg a xam sa diggante ak sa borom yàlla dana la ko ci defal te ci alxuraan lañ koy def ci lugatul arabiya ci lañ koy def mooy làkku arab ci lañ koy wax léeg-léeg am ñoo xamante ni ki bi dañuy binde ni ñuy binde olof lañuy bind bëgg ko indi ci arab te arab la xaatim bi jàngale ni ci lañ ko war a bind ci luxatul arab ci lañ ko war a bind waaye waxuñu làkk wolof ñu bari ñu ngi ci wax waaye ñi ko maîtriser comme sama classe gi bariwul boo bëggee faj mën nga ciy jaare pour faj boo loo bëgg ci àdduna rek incha allah taala yàlla mën naa dogal soo ko xamee da nga ci jaar di nga ko am ci ni nga xamante ni noonu nga ko bëgg moo tax tey ñu bëgg a ñëw andi ci tuuti ci li nu xam ci bunt bu njëkk rek benn bunt rek lañ ci bëgg a waxtaane comme mbirum wërsëg ak yu demee soxal na nit ñi ba nga xam ne ku mu soxal soo farloo te jaar ñu ko jaaree incha allahu taala mën nga ciy jariñu te doo dem di jàmbat keneen soxla soo xamante ni ki bi moom ngay am ci àdduna moo xam soxla bu mu mënti doon. te boo xoolee musalas bi dana la wax ni musalas moo yore àdduna avion yi daw machine yi portable yi lépp luy doomu aadama di am muy niveau technologie yi nga gis léegi yépp ci musalas boobu ci lay sukkandiku. parce que ci benn la commencé yem neuf nga xam ne ni nga jëlee sa portable di manipuler tey bind sama numéro comme par exemple par exemple 77 532 82 64 yooyu numéro nga soxla saa boo ko jotee saa boo ko defee di nga ma jot waaye boo jaawalee numéro yi di nga jot keneen ku wute ak man musalas bi itam noonu la demee waxtu woo xamante ni juum nga ci sa liggéey bi moom ci boppa moo lay xamal ni demeewu ma nii kon lala war mooy nga defaat vérifier ko ndax juum nga wala juumul su fekkee am na loo xam ne def nga ko te amu ci yow yaa wàcc yoon wi waaye moom wàccul yoon wi ndax it li nga xam ni mu ci ëpp solo mooy tawhid gi ci nekk ak uluhiyya muy yàlla ji ci ne kon li ci ëpp mooy ñu commencé ko ci bind ci ay araf yi ñu xool ko ndax dana ci am solo lool dana am njariñ ci lu baree bari pour ñu mën koo xam ci commencement bi ñu commencé kon bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bisimilahi rahmaani kii lépp lu nit di wax wala nga koy commencé di ko liggéey di ko def bisimilah rahmaani nga ciy jiital waaye musalas bi nii la. kii mooy arafi lii li muy jàpp mooy 45 ñeent fukk ak juróom ba 2 la kii 9 la 4 7 5 3 6. 1 8 soo leen boole mu jox la quarante 45 cinq mooy lii Adama am na ñuy bind Adama mais bii mooy bu wér bi parce que kii li ma leen doon wax léegi dañuy tere ku ko wañuwaale ci lim bi nga war a def ci si dañ koy tere ñaari alif masalan misla ismaila aywa gis nga bu fekkee alif bi dafa nekk fii alif nekk fii dañ lay tere alif gii wala gii nga alif nga wàññi ñaar yëpp benn bi ngay wàññi bàyyi benn bi su ko defee masalan waaw su ko defee ñeen fukk bii nag ak juróom mooy tekki aadama mi di ñeen fukk ak juróom parce que 1 plus 4 égale 5 plus 40 muy 45. nga xam ni lii fii la nga mën a tënku am li nga xam ni moom nga soxla ci li nga xamante ni moom ngay wut wala li nga xamante ni moom nga bëgg su ko defee nag lii ci la àdduna bi yëpp maanaam tënku ci la àdduna bi yëpp di dox cinq yi moom la lay bëgg a misaal ci kanam ni la lii mooy loolu. parce que cinq soo ko diviser par trois yaa ngi dégg 45 boo ko diviser par 3 ku ne dina am 15 15 xam nga 45 da nga koy diviser par 3 ci musalas bi mu ngi nii xaaral ma woon la pour mu gën a leer. voilà cinq bii moo la jox lii masalan tey soo amoon turu nit wala sa soxla ci misaal rek nga wàññi ko mu nekk 45 45 bii da nga koy diffise par trois ci ñetti nit ñetti nit yi ku ne day am quinze nga sànni ñaari xaaj ya jël benn xaaj bi diviser waat ko par 3 mu jox la ku ne dalay jox 5 maanaam. quinze boo ko diviser par trois cinq lay des soo moyee un un boobu ngay dugal fii nga dem deux trois quatre cinq six sept huit neuf deux plus sept neuf neuf plus six quinze kon day dellu fii cinq baa ngi nii plus un 10 10 plus cinq quinze aywa mu ngi noonu yii yëpp boo ko xoolee cinq la parce que normalement li nga war a am ci ci li ëpp solo mooy musalas bi boo ko dugalee fii ak fii ak fii yëpp dafa war a tolloo loo ci peese rek dafa laa war a jox loola nga peese fii mu jox la loolu nga peese fii mu jox la loolu nga peese fii mu jox la loolu nga peese fii mu jox la loolu lii la ñuy wax musalasul xasaali te musalas bi bu fekkente ni mbir wërsëg la tey misaal euh, ci ci misaal nga jël sa aajo yëpp peese ko aajo bi jox la quarante cinq quarante cinq da koy diviser par trois nga jël be ñaari xaaj sànni jël benn xaaj bi benn xaaj bi quinze boo ko diviser par trois ku ne cinq nga yam nga dindi ci quatre mu des un un boobu moo nekk nii mooy une benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett ñeent fi mu ne lii boo xoolee li ci biir lépp musalas bi moo ci ne mais ñi gën a bari dañuy jël quarante cinq bi rek. daal divisé par 3 mooy 4 déedéet fekk da nga koy xaaj ñetti xaaj ñaari xaaje nga sànni ko jël benn xaaj bi séddale ko ci biir musalas bi mu loog laa mën a jox li nga xamante ni mooy jumlëb sa aajo bi nga xamante ne moom nga am ba tax nga dugal ko ci biir musalas bi su ko defee fii fii lañuy wax trois biyu euh, naari yu kon astaghfirullah trois bi euh, hawaay yu ak maa yu mooy ñeenti ñeenti ñeenti tapp yi mooy ñeenti tapp yi moo tax ñu naan bidiwum nit ki ima benn dafay nekk safara mbaa mu nekk suuf mbaa mu nekk ngelaw mbaa mu nekk ndox lu yàlla bind ci ñeent yi la ko bind muy mëdët ak jëwhër ak taax ñett mbindeef yooyu la mëdët mooy toqantal man yi ci leen nit juddu jëwhër mooy tàkk-tàkk maddat jëwxër taaxa waaw jëw xër mooy leer malaaka yi ci li ñu ci la leen yàlla bind taaxa mooy jinne mooy safara ci la ñu bind jinne yi moo tax jinne buy tàkk day dee buy dee day tàkk ba jeex du dee comme ni nga xamante ni noonu la doomu aadama di baaxoo jinne buy dee day tàkk ba jeex kon ñeen ñetti mbindeef yooyu ñoom ñoo am muy maddat ak jëwxër ak taaxa kii toqantal man nii la kii leer la kii dañ ko bind ci safara moo tax ñu naan léegi nit ki biddiwam dafa nekk safara wala biddiwam dafa nekk ndox ki biddiwam nekk safara soo ko dee wut wala yow sa soxla bi dafa nekk si safara nga di ko wut jox ko ndox doo am soxla bi wala yow sa soxla bi da ngaa nekk safara kii nekk ndox kii nekk ngelaw boo ko dee wut xam nga foofu tàkk-tàkk rek la moo fay am danañ dem ba ci biir ci mbir yi ba ci cadre sëy yi sax danañ leen ko expliquer incha allah sëy yi nga xam ne mën nañoo ànd ak sëy yi nga xam te ne mënuñoo ànd ñaari sëy yi nga xam ne bu ñu àndee sëy bi mën naa yàgg mën naa baax ak sëy yi nga xamante ni bu ñu yàggee eh, bu bu amee sëy bi du baax du yàgg yooyu yëpp xam-xam bi dafa la koy nettali te fii wax naa la léegi ne la ci nga mën a lijjantee lépp looy lijjanti ndax su dee feebar la kii daf koy faj waaye doo ko dugg nii kii ci bunt bu njëkk bi la muy buntu wërsëg su fekkee dangaa am sa soxla nga bind ko wut sa soxla rabbi abli maalan jasilan bi xaq mikaayilu kasaako alaahu yi xëym fatawra saaxu rabbi abli maalan jasilan bi xaq mikaayil nga daal koy asaf boo ko asafee lam la jox nga diffusé ko comme ni la ko waxee troisième nga nga koy ko beneen xaaj bi nga diffusé waat ko par 3 moyen nga dugg ko fii su fekkee dafa am kasara kasara bi fii lay nekke su ko defee nag fii tam ci sikarin wi werante am na ci loolu lépp incha allah dina leer ci kanam parce que ñu bari wa man araada an uh, an yaskuru an tay an yajid risqa fal yaskuru bi aksaral xadadu min baytil kursiyu wa awsatul xadadu min bayti naari wa jumlatul xadadu min baytil xuddi xudb maanaam tey dañ ni boo bëggee wërsëg ci niñ la koy jàngee ci Mumtaal Bayaan bi dañ la naan na nga jël lim bi gën a bari nga sikkar ko ci baytul yu parce que kii mooy kursiyu kii mooy baytul kursiyu wa jumlatul xadadu min bayti yi kon kii mooy naar yi kii mooy safara wa jumlatul xadadu min baytul xubbi parce que wa awsatul xadadu min bayti naar yi la wax maanaam masalan tey 111 bu fi nekkoon da ngay bàyyi 1 bàyyi 100 jël 10 bi képp moom ngay sikkar fii bu fi 110 nekkoon da ngay bàyyi 10 bi 100 rek nga fi sikkar masalan dinaa la ko wax léegi ci kanam pour mu gën a leer dinaa la ko génne laat pour mu gën a leer waaye wa jumlatul xadadu min baytul bi xam nga léegi am nga ñett comme li ñu doon wax benn mooy ak sarul xadadu min baytul kursi ñaar wa jumlatul hadadu min bayti naar yu ñett eh, eh, eh, wa awsatul hadadu min bayti naar yu wa jumlatul hadadu min baytil xudd yu xam nga léegi am nga ñett waaye daf la naan arbaata taxlubu salaasata gis nga ñaari nit bu ñuy bëri danga leena leen peese kii nekk 4 kii nekk 3 ba ba dunay tukki numéro 4 bi numéro 3 bi mënut a daan numéro 4 bi moo tax ñu ni al arbaata tax lu bu salaasata maanaam ñett ñeent dafa ëpp doole ñett léegi da ngay avancé wa akasarul hadadu min baytil kursi wa aw wa akasarul hadadu min bayti naari wa awsatul hadadu min baytil xala wa jumlatul hadadu min baytil kursi gis nga léegi am nga ñett ñeent parce que bu njëkk yaa ngi woon benn ñaar ñett léegi yaa ngi ci benn ñaar ñett ñeent mu neet ni ak xam satu taxlubu arbaata ñu ni juróom moo man ñeent kii juróom la kii ñeent la nga ni benn akasarul xadadu min baytil kursi wa akasarul xadadu min baytil naari yu wa akasarul xadadu min baytil xalam wa aw awsatul xadadu min baytil naari wa jumlatul xadadu min baytil xutbi parce que wa wi aqwi mina tarbi juróom moo ëpp doole ñeent tey dinaa koy wax ci ñi bari ñuy bëri ku sukkandikuwul fii leneen loo wax ci football ak bëre kat ni kii mooy daan wala diw mooy daan man ngaa juum waaye fii su fekkente ni nii juumuloo ci ci kalkin mbër muy bëre wala kuy xëccoo ak ñaari ñu mën a doon moo xam ci at ñu mu xëccoog lu ñuy mën a xëccoo soo leen peesee fii da nga ci mën a xam kii gañe waaye nag dani na fekk nga jàng te bul juum benn araf parce que même bii ci misaal soo ko doon bàyyi ci wàññi sa calcul bu manqué un rek sa calcul dootu baax loo def rek du jag parce que da ngaa def loo xamante ne ni bokku ci mu ngi mel ni julli rek boo ne allah boo defee takbiratul ihram kooku farata la boo koy bàyyee ci julli rawatina nga jàng faate nga jàngatoo faate mu ñaari farata yoo bàyyee ci julli loolu mënatoo koo mënatoo ko sujjóota mënatoo koo def dala da koy defar rek waaye da nga koy kii waaye doo ko doo ko doo ko mën a sujjóota ko mën a def dala da nga koy remplace kon kii moo man kii kii moo man kii masalan benn ñaar ñaar yi moo man benn ñaar ñett ñett yi moo man ñaar benn ñaar ñett ñeent ñeent yi moo ñett benn ñaar ñett ñeent juróom juróom bii moo man ñeent benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom benn bii moo man juróom benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñaar bii moo man juróom benn benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñett bii moo man juróom ñaar nga ni benn ñaar ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent neuf bi moo man huit te day dikkaat deuxième li ñu naan deuxième partie tey xaaral maa expliqué la ah, masalan tey nga ni rabbi habli maalan jasilan bi haqi mikail ayo maanaam tey lii sooko ko asafoon mu jox la 342 léegi ni nga yàlla rabb habli maalan jasilan bi xaq mikaayil maanaam yàlla may ma alal ju bari ju toftaloo ci barke mikaayil parce que kii dafa bokk ci mbindeefi suñu borom yi maanaam lépp lu aju ci wërsëg ci doomu aadama moo xam nit di ko jël wala jinne wala melantaan wala xorondom wala lu mënti doon malaaka mi moo yore mission boobu ku mu tëmbul ci wërsëg boobu doo ci am ndax moom la yàlla jox mission boobu ni ñuy fare ministre wala ak yeneen ministères yi ci des kii moo yore agriculture kii moo yore lii kii moo yore ndox mi kii moo yore naa noonu la yëf yi demee suñu borom nguuram gi noonu la demee kii moo yore mbirum wërsëg gi képp ku am wërsëg moom moo lay jox wërsëg képp ku mu joxul wërsëg yàlla ci boppam moo namul ci wërsëg jox ko ko pour moom mu jox la ko léegi nag comme wax nga loolu yàlla ba pare ci noo koy waxe nga def nii comme Moussa Allas bi ma leen waxoon aywa waaw

1 plus 6 7 7 plus cinq 12 boo ko xoolee 12 baa ngi nii 1 2 nii léegi soo wàccee lii daf lay jox 342 nga wàccee lii mu jox la 342 342 par 3 moo lay jox 1026 moo lay jox bismillahi rahmani rahim parce que bismillahi rahmani boo ko wàññee 1026 la lay jox lii la lay bismillahi rahmani rahim bi ñett kii boo ko xoolee tam ba tey 114 par 3 mu jox la cent 342 114 boo multiplier par 3 da lay jox 342 342 nga diviser par 3 mu nekk ku nekk day am cent 114 114 nga moyen 4 mu jox la mu des 110 110 yi moo nekk nii léegi boo koy wér da nga naan taskuru bi ak saral xadid min baytul kursi yi waxoon nañ leen léegi ni leen kii mooy baytul kursi kii léegi nag comme léegi dañ ne leen li gën a bari ci baytul kursi yi ngay sikkar cent bi ngay sikkar dix bi amuloo ci soxla bul ko laal dégg léegi wa wa jumlatul hadadu min bayti naari yu ak li digg doomu ci bayti naari yu kon kii mooy bayti naari yu kon kooku mooy bayti naari yu nag te dañ laa wax ni li ci digg bi nga jël ko kon fukki yi ngay jël bu laal cent bu laal un dix ngay jël wa jumlatul adadu min baytil xutbi yu nga daal di def 4 ndax lépp la wax ci baytul xutbu te kii mooy xutbu nga def 4 def diis def 100 aywa wa tarbi aqwi mina taslis bon ñeent moo ëpp doole ñett te léegi amoon nga benn ñaar ñett waaw benn ñaar ñett nga amoon léegi da ngay kon loo gën di avance di gën a am doole di gën a am poids ci misaal kon da nga naan wa aksarul adadu min baytil kursi yu wa aksarul adadu min baytil naari wa awsatul adadu min baytil xalq wa jumlatul hadadu min baytul xutbi nga doog a dikkaat fii parce que liñ naan lu bukk wiiri wiiri jaari ndaari foo ko mën jaar ak foo mën a commencé foo mën a jëm si sero bi mu ngi nii fi mooy secret bi fi la nekk ci baytul xutbi bi fii ci la nekk parce que ñeent yi kii dafa nekk naari yu kii turaabi yu kii hawaa yu kii maa waxoon naa la fii mooy nekk baytu kursi yu bala ñu ne dama juum fii waa kii mooy kursi fii nag fii la bidiwu nit ki nit ki nekk benn nit ki dañ koy bind ci safara wala ñu bind ko ci suuf wala ñu bind ko ci ngelaw wala ñu bind ko ci ndox ñeenti ñoom naka ngay xamee nag ni nit ki ci ndox lañ ko bind wala ci ngelaw wala ci suuf dana la ko leeralal ci kanam soo ñëwee ci noonu nga musalas bi noonu lay doxee ba mu jeex ndax ba juróom-ñeent ba ba ba ba buntu bu bi nga xam ne moom lañuy ñuy wax xars kii mooy xars xars kii mooy xars baytal xars léegi nag fii fi la musalas bi jeexee waaye toujours da ngay dem soo amee benn ñaar ñett ñëwaat watar bi aq wi mina taslis benn ñaar ñett ñeent wa taxmis aq wi mina tarbi juróom moo man ñeent benn ñaar ñett ñeent nga ñëw fii juróom juróom-benn moo man juróom-ñaar juróom-ñaar ñett a ko man juróom-ñett juróom-ñeent a ko man noonu lay tëdd fi léegi nag boo bëggee génne rawxaan foofu moom gaa yi dañuy piraat dama koy junj rek damay xool rek génne ci benn rawxaan parce que boo ko defee ni nga xamante ni noonu nga koy waxee ñu bare bare dañ koy jël ci anam boo xamante ni dañ ci dul ànd ak ndigal. aywa masalan nga ni. da ngaa dama laa waxoon léegi ni trois cent quarante deux léegi euh, plus aywa voilà trois cent quarante deux boo ci boolee waaw trois cent quarante deux

fii nag fi la rawaan bi génne nii ngay def kii miim la saat nii sa yaa ilu kii lañuy ñuy wax rawaan rawaan bii nag dañ ciy def lu baax mais mënul lu bon dafa am na xuddaam li ñuy wax rawaan ak xuddaam kii mooy rawaxaan leer rek ci la ci la ci lay dox ci lu baax mënul la leen lu bon xuddaam tam mu ngi ci kanam dinaa la ko wax waaye bu boobaa kenn du ko génne ci lii parce que ci xeex rek lañ koy génne masalan tey nga bëgg feebar feebarloo nit ki def ko mu feebar bu dee ngelaw nga ko bëgg sol wala bu dee dafa yoroon daraja wala bayre ba ñëpp kii ko nga bëgg koo wàcce am soo demee ci su sooratu tiin summa radadnaa asfala saafilin aay boobu mën nga cee wàcc nit ba lu mu mënoon a doon dootul doon dara mën nga cee téye nit feebar la ko ba kenn mun ko faj parce que aay bi dafa soxor ni muy jàppee nit neexul faj moo ismulaay bi ñuy wax mun muntaximu képp koo ci feebarloo day yàq deret kooku day yàq deret ah koo ci yàq maara di taal yàlla ci yàlla musal ci def ko sax waaye koo ci xas yàq dootul neex a defar léegi rawaani fii la diggante fii ak fii parce que dañ booy génne rawaan ginnaaw bi nga amee lim bii bii 42 ngay génne 42 mooy lii mabun mabun kii quarante la kii 2 muy 42 mais am na ñuy def nabun nabun mooy cinquante 52 bi lu ñu digle musalas bi lii la jàngale parce que kii da ngay jël 10 plus 30 muy 40 1 plus 1 muy 2 muy 42 moo lay jox mabun bi parce que feeg yaa yilu bi ñëwul amaguloo rawaan bu doon nit la man nga am nga jëmmi nit waaye amaguloo ruuxu nit kii mooy ruuxu rawaan feeg amaguloo yaa ilu bi amaguloo rawaan parce que waxtu woo dugalee fii yaa yàq nga rawaan bi kii du yoon parce que boo fi dugalee yaa li musalas bi bañ mooy nabbun nabbun mooy 52 parce que 30 plus 10 quarant plus 10 cinquante plus 2 52 te déedéet fii la mabun la wax nga dugal ko fi kon massa sa yaa ilu mooy rawxaanu musalas bi keneen ku la ko mën a wax ñaari istixraaj rawxaan moo am benn bu njëkk bi mu ngi nii beneen bi ci des nii rek ngay def bo aywa bu boobaa nag doo ci dolli 1440 loolu moom mën naa leen ko wax pour ñu xam ko ni doo ci dolli 1440 aywa voilà gis nga ko soo ñëwee tey bëggeen cee génne rawxaan am sa yaa kenn ci àdduna ku mën a weddi li muy xam-xam amul ñaari istixraaj rawaani rek moom amul leneen amul commentaire amul leneen parce que kii da nga cee dolli ci kii wuloo ci soo dollee ci bii lii la lay jox soo ci dolliwul lii lay jox amul beneen ku la mun a wax rawaxaan bu ñuy génne burul bi ndax lii moo lay jox lëlee dama caa dolli woon 1440 mu jox la 1782 soo ci génnee 42 daf lay jox 1740 1740 boobu rawaxaan boobu moo nekk nii kii nag moom génnewuloo ci dara parce mooy jumla musallas bi li nga xam ne moo nekk fii léegi nag ñetti trois ñetti trois cent quarante-deux yi moo lay jox mille vingt-six moo tax dañuy wax ni dafay daal di ñibbisiwaat ci bisimilah rahmaani rahim parce que kii dama la ni ñetti jaamio la trois cent quatorze par mu jox la trois cent quarante-deux cent quarante-deux léegi soo jëlee trois cent quarante-deux soo ko génnee ci bisimilah rahmaani rahim moo lay jox musalas bi net daf ci yem bisimilah rahmaani rahim mu nekk mille vingt-six te bisimilah rahmaani rahiim mooy lépp mooy jaamew la soo jëlee jaamew ci misaal tey nga multiplier ko aywa mhm. soo jëlee jaamew kooku doo ko gaawee